jëm ci quatrième combat de la soirée. direct fi nga bi. amaan mbégte ak contentement bu baax nuyu leen di leen wax ni saison bi tëj nag tey Ndiaye production bi mu ubbee ko ak li nga xamante ne mooy Ibou Afia ak jeex jàmm waaye nee muy ñaari xale di ñaari ndaanaan ñaari xale yoo xam ne làmb war na leen waaye ki nga xamante ne mooy bu anti ak Boy Diop ñoo ngi fi waaye nag dañoo tardé ñu ngi ci quatrième combat bi ñu ngi ci quatrième ci diggante Ama bu Samel ak Boy Niang bu déranger. arbitre bi sifflé na Boy bu déranger dellu na ginnaaw. Boy Niang bu déranger dellu na ginnaaw. jox nañ ko ndox mu naan waaye lépp si tegtal la affaire ay tegtal la. tey sëriñ mane ko cey sëriñ si waaye ama ee eh, eh, booy ñaa ngi noonu booy ñaa bu dérangé ngi noonu arbitre bi daa sifflé mu daal di génn ee eh, pour la première fois lamb lii ma gis ko arbitre bi nga dem jëli sa 10 litres waaye yow mi est nga desee ci dara fu nga xamante ne mooy CNG takk na protège waay booy ñaa bu déranger sa xaalis mbaa jox jox nañ ko avertissement jox nañ ko benn avertissement booy ñaa bu am na ñaari avertissement kii di Boy Niang bu dérangé arbitre na dimanche le 2 octobre tey Ndiaye production woo fi Ama bu Samel la ñu dox ci kawam Ama bu Samel la ñu dox ci bu Samel la ñu dox ci kawam arbitre bi arrêté la eh Ama lan lay signalé noonu Ama arbitre mooy la maître du terrain. arbitre bi sifflé waat na si diggante Ama bu Samel ak booy Niang bu dérangé Boy Niang dérangé Ama bu Samel Ama bu Samel seen càmmoñ Boy ci kawam Boy Niang déranger tibb na suuf Ama bu Samel ña ngay leewtoo ña ngay suuf door na waaye dalul laaw la leen eh Boy Niang fayu na Boy Niang fayu na léegi quatrième combat de la soirée di gërëm waa TV bu baax baax ak waa Jelli TV Ama bu Samel ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang déranger Ama bu Samel mu ngi nekk écurie Badajon Boy Niang déranger mu ngi nekk Malika mbooloo waaye nag bu leen fàtte ndeysaan waa Malika dañ fay ñàkk léegi xam naa moo tax bëggul sax saxe combat bi waaye bëreel mu ngi def ay déplacement te am nga ñaari avertissement sóoraale ko ñaari mbër yaay loo sa arbitre bi arrêté na combat bi ee eh, waaye suñu peer a ngi wax ginnaaw Ama bu Samel ak Boy Niang déranger ña ngay damante ay baaraam ñaari mbari ñaari mbari yaa ngi damante ay baaraam waaye ñu ngi bari bëri bu neex ndax ñu ngi def ay déplacement de jeu eh eh eh eh ñoom ñaar dooran tan ay kurpeñ Boy Niang bu déranger laaw na léegi booy Niang bu déranger ak Ama bu Samel Boy Niang déranger Ama bu Samel Boy Niang déranger Ama bu Samel Boy Niang déranger eh na ko door na door dooraat na hee Boy Niang Boy koor na ko koor na ka ma ngay doo ci suuf hee ñaari mbër yaa ngi xeex waaye combat bi neex na waaye waaye quatrième combat bi neex na ama door na léegi benn góos tibb suuf hee ama bu samel ak Boy Ama bu Samel ak Boy Niang déranger xeex door na gauche droite mu fayu ñaari mbër yaa ngi xeex waaye boo xoolee ñaari mbër yi dañoo ñeme wante ñaari mbër yi dañoo ñeme wante ñaari mbër yi dañoo ñeme wante ko rëpp na ko bëreel nee waxul dara hee ama bu samay rëpp na ci suuf Boy Niang déranger ama bu samel hee waaye xale yaa ngi lu neex waaye Boy Niang déranger mi eh Boy Niang déranger door na door na léegi coup bu dal door na coup bu dal bu Samel eh ñaari coup yooyu dal na tambaaje na ginnaaw biñ demee cinq minutes noppaliku Ama bu Samel ak Boy Niang déranger Ama bu Samel ak Boy Niang door na gauche droite Boy Niang déranger door na gauche droite xeex la indi waaye Ama bu Samel suñu jàppante nag làmb ji jeex jàppante nañu jàppante nañu. jàppante nañu. jàppante bi nañu. jàppante la bëgg. lu xew lu xew lu xew.